jullit kori tela boo xam ne abu zeydin fa dem fa ñu doon jullee ànd ak màggatam jigéen mel ni kuy gum mel ni ab gumbu te fekk gumbu gumbu dugg la ko joxe nag nam naxi xarit ak yooyu yëpp dana leer incha mu ne xakkaa nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam hmm. qaal mu ne asmaatu dogu woon naa hmm. asku xoosa génn min barxayen de tukkee barxayen hmm. dama nekkoon ci dëkk bu ñuy wax barxayen ma bëgg fa baxoo wa qasimtu te mbir moom séenu naa barxayen din melax ak xeet waaye booba nag ñu ngi toll ci cat weeru koor hmm. di seenu korite fa karitu masib arrihlata laxa hmm. an tilkal madinati walis boobale dëkk hmm. aw asada ndare ma fekke bi haa ca dëkk ba yow ma zinati bisab taar ba bisab waajaay waaye ma nim si woon nag fekke fi korite ba xam niñ fee defee hmm. tax sawaruma dem hmm. bala korite falamma adalla ba mu hagsee hmm. bis booba ba mu hagsee bi fardihi àllëg mu dem kooram ma wa naflihi ak julli ñeetam ga ba bis ba àggee xam ne fara sakaatul fitri jot na salaatul xeedayni jot na waaye la ba te mu dajale bi xëy lii ay fasam waraj lii ak wéyleeru mooy ñay dox ak tànk xam ne lépp bis bi daal moom dikk na lu ñu tuddee bis bi daal nit mën na koo def bi loolu amee ittabaatu topp naa a sunnata sunna fi lubsil jadidi ci sol lu xees dama xotti yëre yu bees ma sol ko ndik topp sunna wa barastu ma génn hmm. maaman ànd ak ñi nga xam ne barasa génn nañu hmm. li temps yii di ngir fekke ji ngeen hmm. ma ànd ak nit ñi dem ci musallal ay day ji waxiinal taama waxtu wa dajee jamal musalla mbooloom jullee kay ba wantasama te mu nasu mooy mu dajee ba nga xamee ne mbooloo ma dajee nañ wa axada te xarab ak sihaamu regaj loo bi axada bi maanaa saraa bil kadami ci xat bu mbooloo mi dajee nga xam ne barab bi fees na xat na talaa fenk na mooy agsi na seyxul ak nguur laam genn góor gu agsi ci sam la tey ni ci ñaari làmbaay mu ngi yore ñaari morso mahjubul muqlatayni hmm. kare ku ñu hiit ci ñaari nagi bëtam hmm. moom nag dafa sëgg gisut wa qad inqadada gàddoona hmm. sifal mexlaa lu mel ni gafaka mu ngi lu mu gàddoo loo xam ne xaw naa ne doo ngise yooyu yelwaankat yi di xam lu mel ni gafaka wastataada mu homatul li ajuusin ñaal màggan hmm. moo xam ne kër si alaa mu ngi mel ni njuuma hmm. ne ku koy xomat hmm. ki koy xomat nag am màggatam jigéen la xam na jombul looy ragal ci ñoom soo xeboo ragal ko ci moom waaw kër si alaa mel ni njuuma fa waqafa mu dal de taxaw waqfata mutahafitin taxaw ak aji terteri mu buur taxaw di terter yu mel ni ku jeexal kàttan ba man da taxaw hmm. waxaya mu nayoo tahiyata xaafitin nayoo aji suufeel baatam hmm. mu wax asalaamaaleykum yoo lante ko loolu defe ñaan bokki jigaan ndokkee leen boole naq yàlla na yàlla nangu jaamu yàlla nañ fekkee déwén ñaan yooyu nga gis gaa ñi def ci garage yi dem ak yooyu hmm. ma dem dafa dem ci musalla mais bi loolu la def ah koor gi hmm. hmm. hmm. na ko yàlla nangu yàlla na yàlla ko ñu yàlla na fekkee déwén wala ma faraxa ba mu sottalee min duhaayihi ci ñaanam ba mu ñaanee ba àggal nag ajaala wëndeel na xam sa oo juróomi baaraamam fi duhaayihi ci ndabam dafa dugal loxom ci ndabam lamutu ba am lu fa abrasa mu génne minhu ci ndab li riqaan ay morsoy këyit yoo xam ne xat ku tim na bindeef na leen bi alwanil asbaaxi ci ay meloy ciw mooy ay xeeti couleur fi awanil farax ci jamonoy fiya mu génne ay morsoy këyit yoo xam ne dañ leen bind bind yi ay xeeti la xam naa ka ku doon bind daal xamoon na joti loola saxal ko am bi duma rafet na yéeme na mu jottali kahit yooyu ajoosahoo màggatam ma alxaysa boona ku daal di jommale mu ye mu jox kahit yi màggat mi mu wa amaraha mu digal màggat mi bi an tatawassama ci fu mu settan ak sa boona sang mooy koo xam ne mat na kiliyaan ah, mën ah, na bokk ci dëru muamala ci kanam tuuti waay mu ne ko dangaa seet ñi nga xam ne waaw boo jëflanteeg ñoom dañ laa mën njëriñ faman aanasat ku mu yëg na day yaday tabak ñaari loxom aw xat mu sànni waraqatan aw kayit min hunna ci kayit yooyu la day fa kum gis ne daal lu mel ni ku ko ko xàggee njëriñ dana ci mu jox aw kayit waaw liñ bind ci kayit ku ko ko xàggee njëriñ dana ko juddoo dana ko dogal lee ñaxal ma alqadaru dogal almaatu bari bu ñu yedd ruqaatan morsu këyit boo xam ne fii nekk na ca maktubun luñ bind hmm. su ko defee yëfi dogal moom kenn mënu koo daw hmm. bu xamee bay am am rek lay def hmm. xam naa dogalu yàlla nag ma amee ci benn morsu këyit boo xam ne lii dañoo la fekk may la xalaas bootu mawquudan laqad asbahtu wallahi xëy naa hmm. mawqudan de ku ñu dóor hmm. bi aw ci ay méttit hmm. wa aw jaalin ak i njàqare am nu wante de ku ñu nattoo bi muxtaalin ci aji daagu xaale ah nit ku gis ne moo la ëppale te dala seeraan too dafa naqadee nekkat balawtu naasa qirnan baada qirnin falam ara misla muxtaalin bi mali waaw ah, ni ko gën ñu muy gaa naqade naa la waaw balawtu naasa qirnan baada qirnin falam ara misla muxtaalin bi mali om nu wante rek ku ñu nattaw bi muxtaalin jaaji daagu haale wa muxtaalin ak aji fexe koo xam ne bu la jekkoo jëriñu la wa mortaalin ak aji yongaan mooy lorekat man daal nit ku ma amal njëriñ te yéen wa xawaanin ak wurujaakoon min al ixwaani ci bokk yi ak mbokk mu de jàmb ku de bañ di ñaal ma koo xam ne ku ma jublu hëddi la hmm. lii xalaat yi ngir sama néew de hmm. te ne defuma ko daal xanaa fa amul daal hmm. rek ak jam mooy liggéeyloo ay guntox jam minal xommaali ci buur yi ndawi buur yi fii taddalee amali ci dëngal samay liggéey ñi nga xam ne ñoo mën a ma yëngatu maam ci tedanga dañoo faral dema tuumaal dema koñe di daal mooy sunu def mm. waaw nga xam ne ñoo mën a taxaw li ma yëngatu ma di jaam ci ranga mm. dañoo faral dema tuumaal rek ay mbir dema koñe rek mm. waaye xamaa leen ak jam mooy liggéeyloo ngànnaay ci nit ki mooy sonal nit ki minal xommaali ci way liggéey xaamil mooy ndawal buur ci barab fii taddulin amali yi mm-hmm. ci dëngal samay liggéey fa kam usla bari bu jaaralee feema biyaa ci mbañeel mbañeel bu doon safara kon jaaroon naa ci lu takku waam xaalin ak i beekoor watta xaalin ak i laxas ay beekoor yu tat ay tuleetor yu tat wa kam axturu bari bu may dox fii baalin ci yére yu rab wala axturu te duma rab fii baalin ci xelam kenn maa ngi dox ak yére yu rab waaye xelam kenn du day sax xet la ma ne waaw gënal meen falayta dëhëra xellante woon jamono lamma jaara ba mu jéngee at fa mu fay li yeñ xalma atfaal yi samay gune jamono gannaaw ñàkk rek la ma sédd ak koñe warul ma mën a tegeen warul ma mën a jox njaboot gu ndaw ndax lu métti métti bu doon man doon métti du xem ji waaye bi métti te du man dong nag métti bi gën nay tat gën nay yaatu falawlaa anna asbaali su fekkoon duut samay xalaw hmm. mooy samay doom yu ndaw hmm. axlaal yi ñëy samay gëx ñi nga xam ne ñooma xeew hmm. wa axlaal yi te de samay weteñ ñi nga xam ne ñooma tëq comme weteñ axlaal jamu allin la sëri si wax na ko mu ne jamu allin la waaw waaye dama la waaye sëri si loolu la wax lama jahastu kon duma waajal amali samay mébét su duudoo nag njaboot kon jël samay soxla da ko jëmale ila alin jëm ci alu jëm duma ko def wala walin du caggeen waali wala kuñ naan borom daraja la duma ko def ah damay muñ rek sell ku baax a baax selling bu baax a baax wa duxtu mararatal asiyaa turran fa ma taamun amarra min assuali waaw yu weex yu ne mos naa ko waaye lu weexee ni laaj gisuma ko wa duxtu mararatal asiyaa turran fa ma taamun amarra min assuali fa ma taamun déet cafka wa duxtu mararatal asiyaa turran fa ma taamun amarra min assuali fa mihraab yi sama mihraab te mooy suma barabam jaamu ah ah wala jaratu ni ko noon du ma diri adyali samay lafit ala mazhabi idlali ci diri waaye sama toroxande ni ko noon sama sagar yi de ma leen watat ci fu muy fu ñu may goro jale mm-hmm. du ma ko def ndax wa mihraab yi sama mihraab te mooy suma barabu hmm. jaamu ahraab moo gën a xëy bi ci man wa asmaa lii sagar asmaa moo gën yëkkateeku li ñaan hmm. faal hurrun ndax na fi gor hmm. yaraa boobu dana mujj tax fii fa asqaali hoyo falee samay diis diis bi misqaalin cib góor tuuti lay doon ci alal ndax am na fi góor xam ne lu dara tuuti mën na ma ko wàññilee coono wuyut fii te dana mu fay xarra bil bali tàngooru sama jaaxle bisir balin ci mbubbu wasir walin ak mu joxam alal Haaris ibnu Hammaam Haaris nee na fala mastaarabtu bi ma gaarloo xullatal abiyaati koddayal wëy yi bi ma settantalee wëy yi maanaam mi uslub bi mbind mu rafet mi tuxtu sopp naa ila maarifati mulhimiha jëm ci xam aji rabbam wala fi maalamiha hmm. te de aji boyaate lu ñu màndargaala mooy bind mbindam bëgg naa xam ki ko wéy hmm. waaye bëgg naa xam ki ko hmm. fa naajaani diyaaleeg man alfikru xalam bi annal wuslata ci naka jottaleku ilayhi jëm ca xam ki bind kayit bi talent jooju màggatam jigéen ñi ma gis ne loolu moom nit li ñooy bëri bëri bëri ci kenn dong la mën a leer mooy ki ma jox kii ma mm. waaw waamtaani mu wubbee ma moom xelaat bi anna xulwaanal muarrifi mm-hmm. ci naka neexal aje xamle mm-hmm. e joosu dana mu dagan xulwaan mooy li ngay jox gisaane kat bi su mu daldi la waxaat sa moo xam kii defee ci kaamil bi la moo xam kii xam ay bët yi muy def quran la moo xam kii rëdd ay rëdd la moo xam kii tomb ay tomb la yëpp xeetu kaana la mm-hmm. loolu ñuy jëllaaj muy bulwaan baaxul sa lekk mm-hmm. su ko defee nag da koo jëfandikoo ci yow dafa am loo bëgg a mm-hmm. lu mel ni koo bëgg a dem xam ku xam yoon bi nga neexal ko mu waxal la ko suba kooku dut kayin mu arrive la lañ koo jox dañ ko di bulwaan léeg-léeg ma gis ne kii pour man warul doon kay muharrik la wala hmm. sattuha mu fuglu ko mu hmm. màggat ni ma di ko xool hmm. wayete moom tastaqri dana mu topp assufoofa sappe yi soppan soppan bi muñ dee sappe ki sappe may ko xool muy topp nit ñi pari sappe pari sappe ci mu seddalee kii di ko wata tawkifu muy dotteekuloo al hmm. ak ku fa ténk yi kaffan kaffan mbir muy nekk ténk ak ténk muy leen tàllal loxo hmm. par kenn hmm. xam nga ñu gën a këll yi ci lu muy di yaram daanaka daanaka maa yéen jëwu xajuwul muccut laxaa ñaal ko xanaa wul coono mel ni affaire bi benn réussir daal amul dara amul wala yar ci loxoom ci naawul ndab daal kenn néewu ko daal lañ li ñu par kenn par kenn daa ba see ba sooyee istintaafuha yërëm tëlum ba mu laajee laaj xamut nag wa kaddaha te sonnal ko mataafuha wërëm te léegi dox na ba sonn aadat muslu na bil istirjaan ci wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dafa ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun su fekkee bee ko raxa gi fii kon musiba la su fekkee xillatul muruati moo àgg fii kon kon musiba la ko yebu ne lillahi wa inna ilayhi rajiun su fekkee ñàkk a àggale ñi fii eh, kon itam musiba la ko yebu ne lillahi wa inna ilayhi rajiun wa maalat mu dellu ila irjaahi riqa jëm ci delloosi kayit yi hmm. mu commencé jël kayit mu doon joxe di ko nam hmm. wa an saa fàttaloo ko ak seytaanu seytaan hmm. fikra ruqaati turu suma morsu kayit waaye dafa fàttane joxoon na walam tooñ te bu jëngul ila buqante jëm ci suma pàkk tax bi dem ci ni ñëwul ci man waa waabat mu dellu ila seexi jëm ci góor gi mm-hmm. bakiyatan daaji jooy li nirmaani ngir xañ mm-hmm. mu dem ci góor gi nag commencé jooy mm-hmm. ndax ni mu sonnee ci wër bi te amul dara saakiyatan daaji tawa taxamula zaman jëng jamono boole koog di ñaxtu lool daal ak di jàmbat jamono bi ni mu fa qaala góor gi ne inna lillah wa ufawwidu amri ilallah wala hawla wala quwwata illa billah ah dëgg la musiba waaye ku xebu a jox sa bopp yàlla ndax mu amee mbir yi xam xaqiiqa la waaye dund nag dund moo tax ñu wax ko sikk nit ñi rek moo tax ñu wax ko léeg sikk nit ñi danay delloo nit ci yàlla sama borom léeg mu wan la melooy ñi ba nga xam nuñ doxaatee dara ndax nga mën a yenu ci moom mën naa am loolu la defal góor gi mën naa amit leneen la daawaay góor gi nii la waxee daal mu ne lam yabqa saafin wala musaafin wala muaynun wala wala muaynun wala muaynu wa fil masaawi bada tasaawi fala aminun wala sim lam yabqa desul saafin aji sell nit ku sell ku dëggu mm-hmm. amatul mm-hmm. wala musafin du ca gën aji xaritoo mm-hmm. koo xam dalaa la xaritoo gindoo yow di la taxawle ci sa mbir nekk borom ci wal gu sell loolu amul wala mayen du ca gën aji tëdd wala ku xam ne karim la day def lu baax loolu amul wala mayen du ca gën aji dimbale wala ku nangoo dimbale ku lool loolu amul wa bada at na attasawi hemoo fil masawi ci ñaaw téef yi mm-hmm. gàtt gàtta mbon gi daal a ci am mm-hmm. wa bada feeñ na attasawi hemoo fil masawi ci ñaaw téef yi mm-hmm. waaw mbon gi daal a ci am fala aminin dëg ko am kóolare di am fala amin wala saminun du càggeen aji njëgu ko ca saraamu su ma xaala topp mu wax moom góor gi la xaa ñaal ndaw si waaye nag mën nii mébat lu xal rek mm-hmm. ak nafsu sa bakkal waaye di yaa te nga dëxal ko mm-hmm. mu ne ko waaye nag yaakaar moom jarul muy yàkkeeku mm-hmm. ndax loolu day yàq góorgóorlu nañ gëm njëriñal góorgóorlu rek comme li lañ manee rek jàpp ne ba léegi rek mën nañu dajeeg njëriñ wañ maxee te nga dajale ak riqaa morsoy kayit yi mm-hmm. waxoon diihaa te nga lim leen te kayit yi noonu joxe mm-hmm. nga jël ko dajale ko te nga konte ko mm-hmm. fa qaalat màgga si la ko laqad hadattuhaa lim naa leen lamastaattuhaa ba ma leen delloose mu ne ko jël na ko konte naa wajatu ma fekk yadda dayaa loxol sànku xat xalat mu yongaan ita refan benn ci mot ko kayit yi waaye na gis naa ne benn manqué na ci xam nga dafa fàtte buhari bi fa qaala góor gi ne ko temps san xala ko lëkki ñaan na la boxuma la yow yàlla ko bon yaa def gannaaw anuhramu def nañu xañ way hakki hoonaa sa yërmande alxanasa rëbb mhm. rab mhm. wal hibalata ak fit mhm. xanaa rëbb bi kay doy na loo ca ñàkkee sa fetal loo ca ñàkkee sa xeet loo ca ñàkkee sa jaasi rëbb jàpp la kay doy na waaw wal xabasa ak lam wa subalata ak meer innaha lii la dex sun sa yu ñax la ala ibalatin ci kaw sayu mat affaire musiba bu ndaw la ci kaw wu mag sayu mat bi mooy musiba bu mag bi mooy laaj xamu la sayu ñax bi mooy musiba bu ndaw bi waaw mooy jumtukaay bi noonu laajee far des ci nit ñi lii xel mu mat te bu ñax la innaa lii la dex son sayu ñax la ala ibalatin ci sayu mbo sayu mat dama jëli ko mu ne fan saat màggal mi dal di wàññiku taxta sumbirom dana topp mm. madrajaha yoonam madrajaha yoonam mm-hmm. màggal mi dëppal watan sudu dana yéebaane mooy dana sàkku madrajaha lu mu taxañ mm-hmm. commencé këyit wala mm-hmm. ma daana nii ba ma jege seena mm. xaramtu ma lënkalee bi ruqaati ci morsu këyit bi mm. dirhaman dërëm wa qitaatan ak bagitu dërëm wa hmm. qultu ma wax lahu ñaal ko hmm. ne ko in raxibti boo xeme mais fil masoofi ci luñ boyaadali luñ taral li hmm. al muallam te du lu ñu màndargaal wa asartu te ma junju ila dirhami jëm ci dërëm bi fa boo xii na nga tudd bi sirri ci mbóot al muhammadi mu ñu lëmal wayen abayte soo bañee nag an tasra yi ba nga leeralal fa xul yi jàppal alxiraata doon dërëm bi wax na nga dem kon ñu jàng loolu bi ma jegee dama génne dërëm génne genn wàlli dërëm génne moo ko joxañ dërëm bi nag boo bëggee borom mandarga yi dafa am lu ma lay laaj dal ma fekkee dooma nangoo bi hmm. hmm. hmm. dafa am lu ma lay su dee man nga ma ko leeralal joxoñ ko xaalis bi ne ko su fekkee soxla bi soo ko mënul nag kon ba gis dërëm bi laa lay mën a may tawi ba mu jël ko di dem fa maalat mu dal di jéng ila stixlaasil badri jëm ci jagoo weer ak tam mi mat wal abla ji aga rafet alhammi judaa ji hitteel mu mel ni daal jot ci dërëm bi daal moo ko gën a ndax moo gën a xoom mu ne ma dana bàyyil ji daalaka sa daggi hante bi wasal te nga laaj xam maa ji li nga xam ne hmm. ba daa feeñ na lakka ñe àlla mu ne jëru guddal wax ji laaj li nga laaj fatalatuha ma laaj ko hmm. tilan seyxi dëgg-dëggi góor gi hmm. wa baldatihi ak dëkkam ma laaj ko góor gi ak fu mu dëkk wasiyaare ak wéy wa naasi ji burdatihi ak aji ràbbu mbubam ma laaj ko wéy wi hmm. ak ku ko wéy hmm. laaj ko góor gi itam fa qaalat mu ne ma hmm. ba nga ko dee mi ne ma inna sayxa góor gi day naka góor gi min ahli sarooja mu ngi bokk ci ñooñu sarooja mu ne ma góor gi dee sarooja la dëkk woomu alladi mooy ki nga xam ne wassa njamal na mooy taaral na ab siara way almansooja wada wuñu ràbb mooy borom yooyu su ma xatifa topp mu fëkk ak dirhama dërëm bi xat fatal basiqi kem fëkk liccin wa maraqat te mu génn mu roqat sa mi génn fett ak rasiqi bu di jam mu ne ma góor gi saroj la dëkk moo wéy wéy yi rek gaaw fëkk dërëm bi dem xam nga ci ay tappale lañ nekk bu wax guddee rek mën nañoo loolu moo tax hmm. te mën naa am gannaaw asay u yus asay u say yus këru hmm. boo laajee ñu waxal la laajal xañ na jaa hmm. te boo waxlee loo bëri feeñ da jaa xaj loolu moo tax mu ne ko góor gi soroñ la dëkk mu wéy wéy rek gaaw dal di gaaw rek fëkk dërëm bi ah du ko laajaat dara de ku yor du sëq ah. wa maraqat te mu génn mu rooqa sami génn fett arrasiqi bu daa ji jam fa qaala ji jaxase xalbi sama xol ne anna aba zeydin naka abu zeydin wum almusaar mooy ku ñu junj ilay jëm jëm su ma xel xaw a yàqu fay abu zeydin su ba soxna si taxawoon mu laaj ko ko <laughs> laaj ko laaj ko baaw kar bi sama njàqare li musaa bi ngir musiba mooy li ko jot binaat rëy ci ñaari bëtam ma he musiba abu seydin gisatut métti ma lool métti ma lool lool lool lool ndax ñaari bët nañ amee doole ci ak abu seydin ni mu doonee góor suba bu lu bëri mooy wa asartu ma tànn an ufa jiihi ba ma bettat ko wa una jiihi ak ma waxanteeg moom ma deyaaleeg moom li ajuma ngir naa nattu oda firasati banta sama tollale bii hmm. ci moom mu ne waaye li may mooy fexe ba bettu ko hmm. wax ak moom daa mën a xam moom hmm. asartu ma tànn an uba ba ma bettat ko wuna ak ma déyaaleeg moom te ma déyaaleeg moom li ajuma ngir naa nattu oda firasati banta sama tollale bii ci moom waaye maa kuntu nekkuma woon li asila de waaje joti ilayhi jëm ci moom illa bi taxatti riqaabil jamee ndare ci jéggi baati mbooloo mi alman hii bare bu ñu tere xanu ci moom fi sarin ci yoon waaye boo fam nekk ak man fi ma nekk su ma bëggoon a dem ca moom dama jéggi ñu toog te loolu borom sariya bi da koo tere dem nañ ba nekk ci julleekaay sàppe yi nit ñi toogee nañ ni ñu war a toogee nga de jéggi mm-hmm. du dafa am yaatu yaatu booy fekk ci li ci kanam mm-hmm. te man koo def te doo lor kenn mm-hmm. loolu daganu waaye su masib ay yataasa bu lorooxat biyee ci man xawmun aw nit wax dëgg yàlla bëgg koo gisin nag ak bëgg a xam kum doxin nag du tax mu gënal ma may dëgg nit naan ko baxal ma nit ki naan ma yàq nga sama yére bi yàq nga sama lii ak sama laat aw yasriya wala roya ilayee hmm. jëm ci man law mun yeddeel hmm. wala ñenn ñi yedd ma hmm. te woon nga toog fa nga fekk ni ñi am fa sadaktu ma ma tëqoo bi ma kaani ci sama barab loolu moo tax bi ma toog rek laa toog wajaantu ma def sax soo jëmmam xëy da ayaani muy tënkëb sama jàkkaarloo waaye dama ko teg mën a nekk du ma rëcc waaw ko teg bët fu mën a nekk du ma rëcc ilaa nin xadat ba jeex ma tax ne waxeftu ma sib ayetta assa bu lorooxat biyee ci man xaw mun aw nit waa dëgg fi bagaasam nit dëgg fi tànkam nit aw yasriya wala rañaan ilay royaat ilay jëm ci man law mun yeddeel wala ñenn ñi jëm ma fi baat fa sadaktu ma tëqoo bi makaan yi ci sama barab wa jaxal ma def sax sa woo jëmmum xëy na yaa ni muy tënkal sama jàkkaarloo ilaa nin qadat ba jeex al xutbatu bi hmm. ba nga xam ne xutba bi pare na hmm. waxaqat te xëy al was batu buur hmm. xam ne fi ne ñëpp xeewee ku nañ fu waay bëgg a dem mën na faa fa xafaftu ma gaaw ilayhi jëm ci moom ma gaaw a gaaw jëm ci moom wa tawasamtu ma settantal ko xalal tihaami jaf nay ànd ak ñaari mbati bëtam mu ngi gëm sax waaye xool naa ko donte xool hmm. settantal naa ko hmm. wa tawasamtoo ma settantal ko xalal tihaami jaf na yi hmm. ànd ak dajeeg ñaari mbati mooy ñàkkaa xoolam fa yidaa ci mbetteel samak njortu samak ñaw almaiyatu ibni abbasin ñaw ak abbas la al mooy nga xam ñëw gu toll ni ñaare boo foogee dara ci mbir rek hmm. la nga ca foog moo caa nekk Abdullah ibn Abbas hmm. yàlla da ko joxoon ay xeeti mat hmm. yu bëree bëree bëri loolu ca la woon ah lool ci àddina xew lool lool lool ci àddina ak mat nit loolu itam ak rafet loolu itam xaram fasaatul lisaani lool itam ak bëri xam-xam lool itam yëpp mbiram loolu yëpp mbiram loolu loolu moom yëpp mbiram nit nit nit ku mat nit la wax ku toogaan barabu ñaari nit lay jël dem ci dafa setoon wax tal mu am fasaatul lisaani bu baax maanaam mokkal bu baax itam xam ayaamul arabi bi lisani wa qalbi minhuma nuur mu ne nuurul aynayni dem na hmm. waaye fàggoon na ci nuuru banna aleyka kadiban bu musaw dugg dëgg bul musawee sekkare wala tufsi la woo sirram barabam bu fi ayibal kenn wala taxtaa banna aley aada waaw waaw ñetti lu yoo am yoo xam ne gune guy jege mag gune ko xam war na ko nag waaw waaw gune guy jege mag du ko Seydina Omar fonkee nu ko daan nanga mooy lii mu yàgg yàgg la yujarribanna kasiba wala tufsilahu sirra wala taxtabanna indahu ahada ñett yooyu la ko dénkoon de ba demee ci albidaaya wa nihaaya Abdullah ibn Abbas day waxtaan ak Miqdaad ibn Amr day ko wax li ko bàyyam wax loolu ndax daan yi jar nañ mun nga yow la jëlal junni waaw man na ma fukki junni <laughs> fa isa ci mbetteel almahiyati samak ñaw almahiyatum ni habbasin kem ñaw ibnu habbas la yu bëree daje ci moom wa firasati sama tollale firasatu iyaasin tollaleeg iyaas la mm. iyaas mooy xaadi bi nekkoon busra mm. ci jamonoy Abdul Malik ibn Marwan dafa nekkoon nit ku ñëw ku jonge jonge jonge lool lool lool jamono mu daan sonnal xudaa yi lool gannaaw ñi far ko xaad gannaaw loolu ñi far ko xaad ñi far ñi far ko xaad yi waaye fuqahaa yi boo gisee ñi bañ xaad yi bu jonge lépp luñ ci daan bañ rek gis nañ koy di iyaas mbir day ñëw mu dugal ci xereñat boppam mooy saayiru sëriñaati ji àtte te la mooy def kenn du ma kenn du ma <laughs> kenn du ma kenn du ma dara yaa ko amul tollale waaw lool lool lool lool te dal tontu boobu moom ak anas ak ñeneen nit fañ mosoon di seen du weer weeru koor wala weeru xor yi booba anas moom moo ci gën a domma hmm. mu ngi béy jaaw ba xel bi sax dafa weex hmm. anas ne gis na weer koo xam ne ci sahaaba yonent bi la bokk ci borom xam-xam yi sahaaba yi ak sahaaba yonent bi ñëpp man kooku hmm. waxam du neex a weddi waaye nag mënu ko wan kenn nag te ñi fi nekk moo fi mag gisam war bee gën a lompoñ su bindee ga kiyaas moo waroon a gis ñu benn xef bu sëgg mu rocc xef bi génneel ko xef bi ne ko ana weeram mu ne ko ci mu sa kawar bii la <laughs> sa kawar bii la sa kawar bii la ni mel ke waaye yaa doon kenn nag nit la rek yu xéemee xéemee la daan def doo mos a am kum jotee ñu dem ci mahkama bi mu demee IAS ñàng lool Xadija ne ko noppil mu ne ko xanaa yow liñ la jox xamoo kuy la yow ku koy noppiloo man wax indi ma fi ma noppil ba ma yente ko bi wujjati wax indi ma nga noppil gannaaw Abdul Mari da wax Xadija ne ko danga defal li mu bëgg su dul la Abdul Mari daw mos a ñëw ko mu ngi toog mm-hmm. ay borom bi jaaw wër ko mu leen jàngal tajwid mm-hmm. yaas mu leen jàngal tajwid Abdul Mari xobe wala bëgg ñu ñëw ñàkk fay rek ñu xale bi xale bi ñëw ñu ñëw ñàkk fay dëgg wala ne ko yaas yow sax ñaata am nga am mu ne ko ah, xatam ba nga gisee ci atam fukkeel ak benn yonent bi doon waajal xareb yamaama te yàlla dogal balaa xare bay balañ caa dem moom mu faatu mooy xare Musaylimatal Kazzab mel ni bi mu génne àddina Abu Bakrin loolu la njëkk a wéele ci wàllu siyaasa xare boo ba ko yonent bi di noote dafa waxoon ne Usaamatu bnu Zaydin Harisata moo doon amirul jaysi mooy jiite xare bi mu bokkoon ca mag ña ko toppoon nag Abu Bakar ak Omar Usaamatu mën jiitaloon ca xare ba te bokk ca mag ña ko toppoon Abu Bakar ak Omar la xamaale woon ci at su fekkee taarixe nga man de du la xamaale ci fukki at ak juróom ñaar waaye ñu xam ne jëm nañ ko xam ne jëm nañ xam ne jëm nañ xam ne jëm nañ xam ne xel yi waaye xam ne jëm nañ ko waaw mu ne fa araftu ma xamal ko hina idin ca boobalee sax si sama jëmm bi loolu amee man nag ma feeñu ko wa asartuhu ma xëfal ko bi ahadi xums yi ci lenn samay mbubb ma yëkkati mbubb jox ko ndax ci toppatoo ibnu sabil la yënga ne tumaran gën a ci yére nga am loo ko mën a wàññil ci sa yére nga jox ko ci nga ko bu baax a baax doomu soxnaam ku dem ci ab barab ko jox yi rek amul <laughs> mu dëgg waaw ko jox yi rek bi gannaaw bi la wax la mu la gisante mu waxtaan ma fi mu jaar ak moom wax ma fi mu jaar ak moom mu ne ko man waxoon na man yow ma ko yéen dem wa asartuhoo ma hafal ma hafal ko bi ahadi xumsi ci lenn samay mbubb wa ahabtu ma hoo bihi ci moom ila xursi jëm ci suma mburu xeeti mburu la yoo xam ne soofiye yi ñoo koy lekk lekk bu ñàkk solo la nga xam ne mu soofiye la lekk xam mu solo faa sa mu bég li xaarifati ngir sama njëkk mu kontaan ci teranga ji ma ko defal wayan faa ni ak sama xam ak itam xamme gi mu ko xammi mm. ba mën a nekk mbokkam ak wittalam ci tukki bi wala ba mu xëyu daawata ruxfaani hoote su may mburu mm. mu ne waaw nañ àgg kër ga buñ demee ñu barkelu fa mm. wantalaqa mu boy waya di te sama loxo si maamu woo mooy noskaam ñaan la maa ngi téye ci loxom jiitu wadillee sama ker imaamu woo mooy njiitam sama takkandeer mi ci lay dëgg tànk wala jiw su màggat mi saalisatul asaafi mooy ki ñetteelu wos yi saalisatul asaafi mooy jommalekat bi ñaari wos nii rek mënal luñ cin dara bu ñetteel ba ci la cin de taxawee mooy màggat mi ñu ñetteel ramaaw bi saalisatul asaafi xam lañ koy wax war rakki waa ji buglu ji alladi ji nga xamee la yax faa du nëbbu alay jam xaafiyaa ji nëbbu màggat mi moo ñu ñetteel hmm. xanaa ak yàlla falamma staxlasa ba mu tëqooyee hmm. wug na tii sama barab hmm. wa te ma teewalal ko ma jaalata mug kem gaawal sama jàppandal ba mu demee ba toog tooginu ku ko jox ñam mu lekk ah, ma jox ko la nga xam ne moom laa ko mën a jox ca booba xaala wax na lii ñaan ma def ne ma yaa xaaris e yow xaaris ama xaanaa ndax ànd naag ñun saalisun aji ñetteel ndax xam nga ku fi ne qultu ma ne ko laysa illa lajoosu xanaa màggat mi xanaa ki nga àndatoon rek màggat mi fa qaala mu ne ma maa doonahaa diggale wut ko sirrun mbóot mahjoosun ma de muñ tere mu ko de ma nëbb moom taxu waaw maa doona haa diggalewu ko sirrun mbóot mahjoosun ma de muñ tere summa fataha topp mu hubbi karimatayhi ñaari bëtam ñu tedd ñi wara raate mu jaah mu xool bi taw amatay ci ñaari séexam mu xool bëri xool boo jekk fayda ci mbetteel siraaja waji ñaari làmpi cën mayem yaqi daanu ñu ngi tàkk ka annahuma daanaka ñoom ñaar alfarqa daani ñaari biddiw farqa daani ne ndeke bëri dara ñëw ñu ngi leer nañ fabtaaj tuma bég ba salaamati basar yi ci mucc gisam naa mu gumba doon na ma métti bi ma xamee ne gumbuwut kontaanee naa ko santee naa ko yàlla hmm. waxa jibtu mu héemu min xarayi bi séeri yi ci hmm. way tumarankee jikkoom hmm. waaye na héemu naa dëgg dëgg ndax daal ndax daal affaire gumbu gumbu lagu lagu wala muy leex nii taqut ma xaraarum sax wala tawaani te topput ma istibaarum muñ xataa sa altuwoo lu may ma laaj maa ana lan daxaan ko moo la woo ila taa bi jëm ci gumba gumbalu maa seyri ka ànd ak sa dox fil maani ci xàll yi wa jaw fi ka ak sa dagg almuwaami dalal daanaka moo la wax ila taami jëm ci bungu bungu maa say ni kaan rek sa dox fil maa mi jaar ne benn mandarga bu ne déggindee ko doo ko gis wajaw bi ak sa dëgg al muwamiya mandi way ak sa jéggi dayo mooy sa sori fil maraami ci sànni waay yi dëgg-dëgg daal sa mbir da ngay dem ba wax fa tabaaxara mu feeñal feeñal lu billug na ci doxam mu mel ni koo man ndaw loo neex wata saaxala mu soxlawoo billug na fi di lekk di lekk xëy ma nag moom hatta isa qada ba mu fajee wata refoo xaajoom at alam at aram mu jaal ilay jëm ci man nafaroo gisam ba mu lekkee ba pare nag jàkkaarloog man wa am sada hmm. mu sadd ne wala ma taamat dëhru hmm. wa wa abul wara hmm. an rusdi fi anhaihi wa maqasidi taamaytu hatta qiila inni ahwa aman wala xarwa an yahdul fata haswa walidi wala ma taama ba gumba gumbaloo addahru jamono xani rus di wëllis njub hmm. fi anhaayihi ci ay wàllam hmm. wa maqasidihi ak yi jubluwaayam wa hmm. watam abul wara mooy bàyyi mbindi jamono moom la ñëpp war a niru te moo njëkkee yëfi màtta yi waaw mel ni ab gumb jël ñi dul dara jox leen man man bu nekk joxe leen njër du ne ñi ñi man du ne ñu baax ñi mu koñe leen mm. ñu dëkkee beru mm. mel ni ku xam ne xamul ne ku baax moo jara dimbale mm. ku bon jarul dimbale jamono bi mu defee lii moo njëkkee gumba gumbalu gi yëpp maa tey itam la ñëpp mu war a nit bi loolu amee taxaama yi tuumi ba walla gumba gumbalu du jamono ko def xataa xii la ba waxees ni inni man axu aman borom gumba la dama gumba ba gumba gumba lu bañ moo ne gumba na mhm. wala xar wa dégg kéemaan mhm. ay yax doo bu royan mhm. alfataawaay xaswa waalidi yoonu bàyyam léegi nag nit ñu sa ku ko def tooñoo ko te jamono mooy abul wara li ma def lii la wax summa qaala topp mu wax lii ñaan mu ne in haddamal ilal muxdaani jëm ci sangookaay ba dama bëgg nga dem ci toilette ba sangookaay ba fortin yi nga andil ma nga dikkee ma bi xasooleen ci raxasookaay boo xam ni ruuxu dana mu yéemuloo ak tax ko jël jàmm bu service la ko bu yun xiita dana mu setal alkab ko ténq te na mën a setal loxo bu baax bu yun ay mu te dana xëwal albasara te bind te day baax ci dem bu yuassiru te day gàttal a nagata xañ a gémmiñ te itam boo galaxde ko dafay waral xañ a ñam wi jax ci sa gémmiñ waaye sudd te dana dëgëral alla sa ta siiñ te itam dafay baax ci sa siiñ mën a téye say bëñ say bëñ bu baax wa yu xaw wii dana mu dëgëral almaya data mbaax dafay waral nga am xel mu dal ci hmm. li nga lekk sa xel du jàll ko raxasoo kaay boo xam ne su ma ko raxasoo daal li damay juróom laa bëgg ngeen wala yakun na nekk na duy fa zarfi daa ji set ci ndab te nanga ko def ku set nag arijal arfi daa ji bon di ci gàtt tey doon daa am xañ bu neexaa fatiya dëkki daa ji xeese ci mokkal na doon liggéey bu bees man jàm ko loo xam ne yàggul xëy na liggéey bu bees naayama saxi daa ji xawwu mokkal ci fat nañ ko tëj ci ba mokk mokk na lu nooy itam bu mu ñëgas yaxta boo dana ko jortu allaami su aje laal daruran am nañu koy firee poudre ñu ne éponge mu doon lu neexal laal wa yaxaaluhu dana ko jortu annasiqu aji foon kafuuran muy muy gattu kafuur raxasukaay bu baax ci loxo baax ci gémmi neex ci yaram la ko nga indil ma nekk bu silwise nekk bu dal xel neex xëy waqurunte na nga lënkalee bi ci moom xilaalatan bantab sekkar ne koo kaay naqiyatal asli bu daa ji set cosaan mm. génne sekkar ne koo bu set lahaa boobu ñu xaal ne ko naxaafatu sob bi mm. xos ak aji sob mu nekk bant bu sew bu xaj ci diggante yi wasaqalatul ab bi mm. ak ñëw ak jaas yi nekk bant bu am ñëw bu mën a génne wa allatul xar bi ak ñëw ko ak guntu wala doonatul xos mi ak nooy ak banqaas aradu bu daa tooy mooy bant bu neex a fekkal ne ko hmm. ay jumtukaay la yoo xam ne ñoom dañ ko wute rek ñun moo hmm. hmm. fii maa ji xam ne amara digle na ko naa jañ xanu ma taxaw ma taxaw ci léegi ndax niil day diisal yaram comme lekk na ba àgg su ma ko indilee di bu raxasoo ci doon diisal yaram bi mu jeex waaw ñam yoo xam ne boo lekkee ba àggal soo tàggoowul ak moom daf lay diisal di fidd nit ma naa gaaw di dil hmm. hmm. ko hmm. wala ay walam ayim defeguma woon ilaa naw jëm ci nag moom xasada na ay yax daa ba mu wuru jët biir xaali ci gi may tàbbal almox daa sangookaay la ma naan demal ci toilette ba foogu ma woon mukk ma ba ma génn mu yolleeku ba dem la ba wala tason naytu jortuuma woon ne annahu naka moom saxira reetaan na min rasuli ci ndaw li fitti daayal xilaalati ci ci sàkku bantab sekkar ne ko kaay wal xasooli ak njàng lim naan indil ma raxasoo kaay indil ma sekkar ne ko kaay xam woon ne daf may di ma caaxaani di ma saboote so ma demee mu ne ak ah, koola ah, dama bàyyi ko dem bàyyi wala tasamnaytu jortuhu ma woon ne annahu moom saxira reetaan na min mm. rasuli ci ndaw li ay mm. ay koone jëfu ñoo nax foogu ma woon loolu la xalaat mm. fitinaayil xilaalate ci sàkku banta sekkat ne ko kaay wal xasooli ak raxasoo kaay falam maa xottu bi ma del see nag bil multamasi ak li ñoo sàkku bi ma ko indilee li mu fi aqraba ci lu gën a jege min rajan nafasi ci dol delsig noyyi ci nit bu gàtt la toppatoo yëpp ndax yàkkamti guma yàkkamti mu mën set ba dara du ko bind ci yaram bi ma ñëwee wajattu fekk naa al jaww jaww ji xat xala mu fi dama fekk affaire bi ne yaram wa seexa góor gi ak màggat mi xat aj pala fàndaa ñu ne fekk naa ñu dem fa tasattu ma jéggi dayo xadaban ci min magri yi ngir pexeem waaw ma sori maanaam fa tasattu ma takk xadaban ci min magri yi ngir pexeem waaw ma jéggi dayo ma sori talaban ci sàkku fi idri ci gannaaw ne ma toog baaxut mag du tappale mer lool waaye bàyyi daa ko tappa mu mën a dugg daa koo fekk ma dugg ak waaye fa kaana dafa nekk daal kaman mhm. di mel ni ku xam ne xumisa na xees na ko mhm. filma yi ci ndox mhm. aw xorija wala xéegis na bihi ak moom ila anaani sama jëm ci niiri hasamaan waaye daf ma mër mel ni koo ne xaatul ci bisu man xaw dafa dugg ci ndox xaw dafa dugg ci niiri kaana dafa nekk kaman di mel ni ko xam ne xumisa na xees na ko filma yi ci ndox aw marija walla yéegees na bii ak moom ilaa naa di sama jëm ci niiri asamaan kon ñu jàng loolu